Moi, je voudrais que ça soit clarifié. Ce qui est clair, man, je ne suis pas venu pour parler de Ousmane Sonko. Je suis venu pour dire les raisons pour les lesquelles bu ñu am amené sujet bi ma àndoon ak moom raison yooyu amatul ligne politique bi mu yore ak bi ma yore du benn. c' est clair. ñun de ba tey ah, xamuñu différence bi. différence bi man soo xam yow moo lay rek quoi. Boubacar man j'ai envie de poser une autre question. parce que finalement est ce que c' est pas une question d'ego non je le rejoins. mais est ce que ah non c' est pas est ce que c' est pas une question d'ego parce que jàpp naa ne aussi bu fekkente ne.